jàpp nañ ne dafa toog ba benn jamono muy wut une issue de sortie nan lay def ba situation guuta bi mu nekk ba génn si mu jàpp ne fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ay adversaire politique am lañu woon ñu yàgg xeex pendant des années jote boobu jural Sénégal jafe-jafe yu ne ay nit faatu ci ay nit ñàkk ci seen alal ay entreprise tëj ci mu xëy xëy xëy xëy jàpp ne loolu da war a jël neexalee ko ay nit wala mu sauver ko ses arrières pour mën a génn par la grande porte te alors que la chose mu mënoon naa simple ci moom mooy bu yemoon fi constitution commencé ak fu constitution yem kon lii yëpp duñ ci fekk donc kon tey collectif bi situation boobu nga xam ne kuy sénégalais wala képp ku am dara ci humanité sa xol di am yëg-yëg lu mu ndaw ndaw li ngay yëg ci face à cette situation bi nga xam ne am na ay nit ñoo xamante ne ñàkk nañ ci faatu nañ ci ñu xëy xëy faatu googu Macky Sall man bëgg koo jàppee comme si ñoom yàlla mosu leen a bind comme si mosu ñoo jaar ci kaw suuf comme si amuñu ndey amuñu bàyyi amuñu ñoo xamante ne seen dem gi naqari na leen mu xëy xëy rek mu ne lépp nañ ko faxas pour neexalee ko ay nit wala mu jéem cee lijjanti problème politique bu mu nekk ñun nag loolu tax ñu ne nag loolu du am. ndaxte réew mi ni mu ci amee sañ-sañ ñun noonu lañ ci amee sañ-sañ dafay juddu rek ñu juddoo fi bu nekkee président ñu encadré ko ñu fal ko deux mandats li teraanga ji mooy mu delloo woon ndab gi dans les meilleures conditions mais bu demee ba nga xam ne nag pour mu du génn ci par des calculs politiques moom jàpp na ne dafay xool ñoo xamante ne réew mi nekk pendant trois ans ci goutte goo xamante ne tey ba Sénégal di Sénégal kenn mus musul am Sénégal dund na crise politique bu nekk waaye crise politique bu duree nii méttee nii yàggee nii bëri ay impact yu négatif ci société sénégalaise mësul am ba politique di politique ba léegi donc kon tey loolu mënuñoo seetaan bu dee ne ñun nu sommes des citoyens et dignes de ce nom si nous sommes des patriotes dignes de ce nom mënuñoo seetaan loolu donc ci logique boobu lañ nekk ne nañ taxaw Séné comme la majorité des sénégalais ñëpp boole suñuy doole suñuy xel ak suñu xalaat ne lii lépp par n'importe quel moyen buñ ko mën a xeexee nañ fexe ba xeex ko ba nga xam ne ne si bi du jàll. loi si bi nag xam nañ fu ci suñu doole commencé xam nañ fu ci suñu doole yam waaye li njëkk bala ñoo sori mooy dañoo bëgg balaa dara xew balaa dara xew ñi nga xam ne tey président Macky la bi muy xeex ak ay adversaire politique am jaay nañu la peur au Sénégalais le président de la République a vendu la peur aux Sénégalais wax ne leen ñii may jàkkaarloog di xeex ak ñoom politique doom taxu leen jóg ay bandi lañ ay woyu lañ ay terroriste lañ ay force occulte ñu ngi fi te boma bi mu ñu koy wax naqari woon naa bañ a gëm ndaxte ñëpp gisoon nañ ne li doon am di yëngal Sénégal képp ku ne nekkul lu ñu organiser jafe naa bañ a kom naqari naan bañoon a comprendre donc kon bu ñu waxee ne ñu kat jaay ñu la peur ne ñu situation bi nii mu demee kat li ko li ko waral yëpp mooy parce que y a force forces ndax suñu pétrole bi ñu yor ndax Sénégal géopolitique fi mu toll ci Sénégal ah, ci àdduna bi influence bi mu am ak opportunité bi mu mën a doon ci ku ko teg ci sa loxo ñun bu ñu jaayee peur googu dañ ko nangul bàyyi ko muy jàpp suñuy frère bàyyi ko muy jàpp ay sénégalais di tëj ci loo xamante ne tey mën nañu wax ne ne tey moom mi ñu waxoon nañu ñii kat ay terroristes lañ ñii ay force occulte lañ ñii ay bandi lañ moom moo xëy xëy xëy ci enquête yu commencé gul wala yu jeexagul mu ñëw ñëpp ne leen dem leen ñibbi kon loolu bu ñu xoolee ba si biir xamul lu muy nuru li si njëkk mooy c'est un manque de respect notoire à l'endroit de l'appareil judiciaire du Sénégal la justice c'est un c'est une rupture notoire par rapport citoyens yi droit bi ñu am par ci ñu leen àtte ci façon yu ma yu maase mooy boo citoyen tooñee nga xëy jël benn citoyen baal ko te toppoo yëf yi ba mu jeex gis beneen citoyen boo xamante ne ndaxte ku profité ci ci ci ci ci ci ci événement yi am nga sàcc ci dara am na keneen koo xamante ne ñu ñu jàpp la ñu ne parce que da nga ko def ci cadre événement ci manifestation politique am na keneen koo xamante ne lu gën a yées li nga sàcc loolu la sàcc te yow bi ngay génn yaa ngi ko fa bàyyi kon yow léegi ban couverture nga am mooy parce que da nga kaa def rek sous de la politique kon tey li ñu mën a comprendre tey mooy politique tey dafa dem ba benn moment ñàkk koo def sax dafa mel ni Sénégal wóorul te alors qu'il représente la classe politique représente un maximum un pour cent de la population waaye dem na ba ba nga xam ne li ñu xamee woon mooy la maanaam mbalaanu kiiraay gi ñu xamee woon yenn corps de métier yi wala yenn profession yi wala yenn Euh, euh, euh, liggéeyukatu état yu mooy l'immunité yi nga xam ne dañ ko daan def ngir def kiiraay député yi ba kenn du leen mën a sonal bu ñuy liggéey ñu koy defal suñu diplomat yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger di ko defal yeneen diplomate yëpp ak yeneen ak yeneen maanaam immunité boobu day mel ni léegi booy def politique loolu dala koy may mooy booy def politique dalay permettre léegi boo tooñee nekk ci opposition dañuy jàpp ne tooñoo kenn parce que dañ lay néewal doole nga jaaree fa rëcc boo nekkee ci pouvoir pouvoir mooy utiliser doole boobu bi mu am fexe kenn du la punir kenn du la def dara kon léegi def politique immunité la xam nga lan moo des ñu am mooy kuy def politique boole ci am privilège de juridiction loolu donc moo la ko wuuteeg ñenn ñi nga xam ne boo nekkee premier ministre loolu rek nga lay wuuteeg sénégalais lambda bi mooy ne bu ñu la waree téye sax dañ laa war a privilège de juridiction donc kon politiciens yi tey dafa mel ni ñoom dañoo am seen justice bopp am seeni loi bopp am ñu leen ak seeni kiiraayu bopp te loolu dafa war a jeex loolu c'est une rupture notoire des citoyens devant la légalité devant la justice loolu il faut que mu dañ leneen li nga xam ne tamit war nañ ko bàyyi xel par rapport à cette loi la mooy c'est une loi discriminatoire mais ségrégationniste ndaxte ci biir population bi nan nga ci mën a sempee ab catégorie rek na leen yéen daal mbaa na yàllaal nañ leen loo leen def kenn du leen ci bind bàkkaar loo leen neex nga def donc ñun loolu moo li heurté sénégalais yi ci loolu moo ñu heurté donte ne ñun ñëpp autant que nu sommes ku nekk am nga une obédience politique waaye politique lu mu gudd gudd lu mu bëri bëri lu mu tàng-tàng lu ko waral lal mooy sa patriotisme bi nga xam ne sa citoyenneté bi nga xam ne doo ko wecceeg dara donc kon ci logique boobu ci fondamentaux yooyu la ñu delloo moo tax ñu taxaw xeex ne dañuy xeex loi bi loi bi nag xeex ko dafa xam nañ wax naa leen léegi ne xam nañ ci fu ci suñ doole yam fi ci njëkk moo dina ne cette loi dañ kaa dugal procédure d'urgence mooy président Macky chaque fois que bu bëggee def dara bala balaa coow lee sori mooy day dugal procédure d'urgence bu ñëwee assemblée nationale ñu patam patamee loi bi voté ko ndax xam na ne sénégalais yi nañ contrer loi bi te pare nañ pour jóg xeex loi bi mu ne nañ ko gaawantu kon mu ngi procédure d'urgence